إذا جاء نصر الله والفتح mbokki jullit yi mbokki taalibe yi Cheikh Moussa Cissé ñambe daaru ak doomam bu tedd ba Cheikh Alaaji Keeba Cissé nekkoon soldaaru Cheikh Ahmadou Bamba xaadimal rasuul dem nañu waaye seen jëf du fay mukk moo tax ñu war leen a fàttaleku mu dib ab ñaan gu mag ca daaru kër ma xoroja ñu jàpp ko altine juróomi fan ci weeru septembre 2022 ci daaru muy amee nag ci ndigalu xalif bu tedd bii di Serigne Aliou Cissé di xalifa bu daaru Cheikh Babou Cissé di sët ci Cheikh Moussa Cissé ñambe daaru mu ngi woo ñëpp ci ñaan li ñuy war a ñaanal seen waajur ak seen sëriñ foofu ci daaru ñaan gi nag su ñu xëyee nañ wàcce ay kaamil ba ngoon sa ñu amali ay ñaan ñaanal seen sëriñ ñaanal seen waajur nekkoon ni ay góor yàlla dëgg di liggéey ci yoonu murit nekkoon ay soldaaru Cheikh Ahmadou Bamba moo tax ñu ngi ci woo jullit ñëpp ak taaliba yi ak dëkk yëpp yu wër daaru juróomi fan ci weeru septembre 2022 di ñaan gu ñuy ñaanal Cheikh Moussa Cissé boole kook Cheikh Alaaji Keba Cissé ñaari góor yàlla yii fàttaleku leen di njëriñ njëriñ gi jàll jëm si ñi ngi ci woo taalibe yi ak jullit ca daaru kër ma xoroja bàyyi wu ñu kenn fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba